karkarloo bi nga xam ne gars yi ko doon karkarloo pro euh, ci suba ba tey ji euh, daanaka bi nu ndéegoo ba pare euh, képp koo xam ne patriote nga ci réew mi wala ngay jigéenaam jigéen ñaale ki nga xam ni mooy ko sell ki xamoo fu mu ne xamoo ci lum ne ndax loolee li ko waral daanaka maanaam kenn da koo gisatul waaye loolee li ko gën a yokk xar mi karaw ki nga xam ne moo nekk ab avocat am di balankoo nekk fële ci réewum France moo dóor benn tiw ci taabal ji jaaxal gars yi ni pro mënatu koo jot mënatu koo dégg te kenn xamul ci lum nag daanaka bi mu demee ba gars yi di ko dabbar batterie commencé jóg ci la gars yi génne information yoo xam ne yu senn la ñi ko relevé Dakar matin bokk na ci ak ñi nga xam ni am solo ko mi ngi ci loxoy takk der yi yi nga xam ne am nañ kon loolee daanaka lu nu mën a baaraam la di ko bàyyi xel kon nag xel yëpp dal ta gaay yi xaar ni xam ni kookee nga xam ni mooy ku sell ki bu fekkentee ni am na ay jafe-jafe jafe-jafe mën naa bañ a bari lool ndax fi mu toll nii ah, daanaka gaayam ko wutal ah, jëmeeg moom fële ca Ndakaaru yi nga xam ne kenn kum ci mën di doon amoon nga ab jaaxle boo xam ne am nga ko kii ñi seenub leader nga xam ne ah, mooy seen yaakaar te it moo porté combat bi nga xam ne mooy combat patriote yi nga xam ne li ñu ci yaakaar daanaka mooy dëgg-dëgg téye Sénégal téye Sénégal goo xam ne gu mucc ayib la jële ko ci xiinum xaana gi nga xam ne jàpp nañ ni ci moom la ne xiinum xaana googee nag yooyee nga xam ne tàccu daanaka dara taxu leen a wala dara mënu leen a tee topp ci ki nga xam ne mooy ku sell waaye nag loolee nga xam ne mooy caravane bi mu doon doxal caravane boo xam ne daanaka bu jàmm la bu liberté la bu amul sens foofee la lépp di doxee tab bi ndax daanaka bu fekkee information boobee bu wér la ba gars yi ceytu ko ba wesaara ko ci li nga xam ne mooy gox yi fasantikoo yi daanaka bu ñibbee ndakaaru gars yi dugal ko biir këram beneen la ñuy wax waaye boobee daanaka dina mën a toog foofee nga xam ne mooy këram di doxal foofee nag ak distance ak ñi nga xam ne ñoo nekk ay ñoñam waaye nekk loo xam ne bu fekkentee ni noonu la demee dëgg-dëgg ñi ko mën a ñaawlu dana nu bari lool ndax kenn kum ci mën di doon am nga àq